Le comité d'organisation du Gamou de Timavan a passé ce jeudi en revue les problèmes auxquels devraient être confrontés durant cet événement les nombreux pèlerins attendus dans la ville en octobre. Une réunion consacrée aux préparatifs de cette manifestation commémorant la naissance du prophète Mohammed paix sur lui s'est tenue en présence du préfet de Timavan, Mamadou Gueye, et des représentants du Khalif général des Tidjane Serigne Ababakar Mansour. La route a encore fait des morts. Ce vendredi, un accident de la circulation s'est produit à Kafrine. Le bilan provisoire est de 4 morts et une trentaine de blessés. Deux bus sont entrés en collision à cause d'un camion en panne stationné sur la route. Selon les informations, les deux bus qui venaient en sens inverse n'ont pas fait attention au poids lourd qui n'avait pas de panneau de signalisation. Trois mois après le lancement du projet de cash transfert, où 543 000 ménages devaient recevoir chacun 80 000 francs CFA, les résultats sont loin des, des espérances. Selon le quotidien qui donne la nouvelle, près de 48% des ayants droit n'ont pas encore reçu le transfert. En Afrique, les incendies qui ont ravagé mercredi et jeudi des zones boisées et urbaines, et urbaines du, zone, euh, du nord-est de l'Algérie en faisant au moins 38 morts ont été éteints, a déclaré ce vendredi 19 août un responsable de la protection civile. Sur l'international, un Palestinien qui avait été blessé vendredi 19 août

Thank you